mburu ak soow da la ko gars yi di wooyee. loo ci man dégg mooy déclaration moom wax dëgg yàlla pour man aussi li euh, ngi doon xaar ne peut-être en tant que conseil économique social et ne woon moom dañoo ñëw pour solutionner problème yi am ci wàllum euh, société bi pour man danoon wax yenn perspective yoo xam ne askan nañ ci mën a dégg ndax euh, ñàkk am xëy ak jafe-jafe yu bëri moo tax booy mer ñu nee naa leen Ousmane Sonko génnewu leen dafa nekk prox ndol ñu génn ci euh, ñenn ñi bokk am na ñu génn mais ñu ci bëri dañoo mere état bi liñ ci mer mooy gisuñ seen bopp ci nit ñi doxalee ci nguur gi pour man ah, da doon apporter ay solution en tant que conseil économique bi ñu ne ci wàllum développement ci wàllum euh, jëmalaat réew mi ci kanam pour solutionner problème bi moo tax ñu teg ko fu mu Idrissa Seck pour man aussi dana indi ay ay perspectives yoo xam ne bu ñu ci tegoo peut-être que problème yi dina mën a saafaro wante wax dëgg fa yàlla gisuma ci lenn loo xamante ni euh, jublu na ci loolu la mu ca wax it dégg nañ ko ci wàllum dialogue euh, politique waxtaan euh, maanaam wàllum lii di médiation politique mais pour man aussi dañoo raté comme dialogue politique bi parce que aussi moom eh, Idrissa Seck vraiment nekkoon na koo xamante ni war nañu am taxawaay bu mat sëkk ci kujje gi eh, ba mën a gérer problème yi mais comme dafa ñëw ci pouvoir bi léegi mbiroog soow la jàppoon nañ ne xëy na bu ñu xóoyalee soow mi nañ ci mosal askan bi maanaam fexe ba trouver ay solution wante déclaration bi ma dégg moo dëgg yàlla eh, rassuré wul ñii di ndaw yi ci wàllum xëy ci wàllum société bi ñu mën a gis seen bopp ci les politiques publiques aussi bokk na ci li nga xam te moo tax xale yi nekk ci mbedd mi ngeen gis leen nii ñu wàcc di taalaka def lu leen neex wante dañoo mer rek dañoo mer rek te wolof nee na ku mer moom euh, ku bëgg dey weexu xëy na dañuy bëgg a dee kon pour man ay signaux ay parce que man jàpp ma ne ni dina am liggéeyam sànni ko fee bàyyi ko fee def lu ko neex rek wala yeneen ak yeneen man jàpp ma ko man jàpp ma loolu ku am liggéeyam mu leen ko am na liggéeyam. mu bàyyi ko fa ngir di deflee pour man aussi loolu xel mayewu ko kon nañu jël exemple ci lii nañ ci tirer ay leçons répondre aux préoccupations des populations moom comme nee nañ économique sociale environnementale lañ yore nañ fexe ba les questions économiques ñu waxtaane ko euh, waxoon nañ première vague bi 1000 milliards coow laa ngi ni coobee terewul euh, nit ñu bëri nee bopp deuxième vague baa ngi nii nit sonn gisuñu seen bopp ci les politiques publiques nañ fexe ba askan bi daal li ñu moom parce que ñoo ko moom leen di fay ñoo leen lépp